yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf woor ba ngoon jot ñu ndogo am ndox dem tëddi bu ñu moytul des na ko dund ci koorug ren gi li tax mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ay semaines yu néew des suñu digg koorug ren gi waaye yéenekaay bi nee nañu tey la marché bi gën a compliqué la njëgu dund gi gën a dogal bi état bi jëloon jëm ci wàññi njëgu dund gi l'observateur nee nañu am na ba léegi ci réew mi ay ko tegi di service régional commerce bu Ndakaaru di dalal xelu askan yu ci l'Observateur ma nga fay wax ne marchandise yi ñoo ngi ci marché bi te njëg yi ñoo ngi fa ñu war a nekk ak lu ci mën di nekk l'Observateur li mu gis ba bind ko ci xëta njëkk moo di njëg yi état bu santaane ñu jaayee ko ak njëg yi am ci marché bi dañoo mel ne yàlla ak yàlla Human Rights Watch di kuréel gu xeex ak yelleefu doomu aadama journal l'info ne nañu ñoo ngi jéebaane yelwaan gi ñu yelwaan loo xale taalibe yi ak ni leen di exploité nee nañu fii ci Sénégal seetlu nañu fi lu mat ay junni junni xale yoo xam ne li ñuy dund sorewul akuk njaam ci seen bataaxal bi ñu def ñoom waa Human Rights Watch l'info nee nañu wax nañu ci fukki taalibe ak juróom-benn yu faatu ci réew mi juróom-benn fukki xale ak benn ñu fi teg fitna fukki cas de viol ak juróom Vox Populi nañu waa Human Rights Watch liste bi ñu dëxëñ ñaawte fii xale yi di dund ci Sénégal liste bu gudd na gudd gog foo ko natt rek weesu na ko note bu saf sàpp la ñu def di ca ñaawlu maltraitance ak exploité gi ñu def xale taalibe nañu it ci mbiri xale yi war a jàngi te jàngiwuñu ak violence sexuelle gi xale yu jigéen yu ndaw di dund ci réew mi réew mi quotidien mi ngi ñuy xibaar ne doomi réewum Sénégal yi nekk jamono ji ci réewum Tunisie ñu bari ci ñoom dellu si ci réew mi rekk la ñu bëgg Kay Sayed mi président bu Tunisie ak wax ji mu waxoon bu yàggul moo leen tàmbale juréeli jafe-jafe xajamal seenu nekkin ba tax ñuy sàkk ñu rapatrier leen dellu si leen ci réew mi njiit réew mi di Macky Sall dellu na ci tournée économique doon def ci biir réew mi Sud Quotidien nañu ginnaaw kees président de la république Macky Sall ma nga moom président Macky Sall ya yu tey jii la ñu gën a bari sud du jukki ci xëyum ndaw ñi di emploi des jeunes ci dëkk ba dëkk baak na mu làqoo naqaree dem ñu làqate ko maanaam désenclavé ko chantier yi ñu fa tàmbali woon ba léegi yeggul ñu yeggale ko demande sociale biit ma nga ko fay xaar leneen lu séeju soxla te mu bokk ci farata yi journal bi nee nañu mooy ay fajkat source yu ci xëtamu njëkk njiit mi Macky Sall démb la yegg ci séeju war fa amal tournée économique bu juróomi fan waaye bi mu wàccee ci ay déportub séeju ba ni ko gunge ko Norvège ñoo ngi dund seen pré-campagne bu baax soleil national xëy di ñu làkk ay soose yu wér péng indi mbaar président mi ngi ñuy waxit ne waa Sédhiou teextu bu toj la ñu teeru président Macky Sall démb ci ñi ko teeru moom président Macky ak mobilisation bu rëy ci Sédhiou l'observateur nee nañu ràññee nañu ca duo bu dudu ko ak tay bu jéeju yi ñëw en renfort ak seen mobilisation bu mag dolli gaañi doole journal quotidien bind ne doole doxul jàmm ci ay xumbeel mu bari ci la waa bu Sédhiou ñàkk hôtel yu mu mën a dalal ay ganam moo tax ñu bari ci ministre yi ca Kolda ñu dal ñu dal ci xët mu njëkk journal La gis fa waxi politique journal bi bind ne juróomi nit a ngi muy Aminata Touré di Bougane Gueye di Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex dogu nañu ci jële fi Macky Sall Ba bokk ci actionnaire yu Copper Express Libération mi ngi ñuy xibaar ne teg nañu ko loxo waa sûreté urbaine